lépp dëgg la alors euh, Momo nu nu nu nu sooba si waxtaan bi. Mhm. nu door rek ak euh, euh, convocation bi nga xam ne moom moom lañu jot léegi muy convocation ki di Cheikh Thiam fële ca police judiciaire maanaam ca cyber sécurité dina fa daal di dem ñàkkul ni rek xëy na kàddu gu mu yëgiti woon jamono yële ci li nga xam ne nag moo di ci ci benn télévision jëmale ko rek ci le régime en place alors Momo yow it nan nga gisee. wala nan jàngatee convocation ki nga xam ne nag moom moo di euh, Cheikh Thiam jamono yële si ginnaaw euh, yëkkati woon na li nga xam ne moo ay kàddu jëmale ko rek si le régime waaw ah man réew mi réew mi réew mi réew mi si la gars yi dañuy wax lu leen neex. Uh-huh. imagine nit ku am fitu mën a ñëw taxaw ne euh, opposants yi ñi nekk si régime bi dañoo bëgg dañoo bëgg empoisonné ay opposants ci biir réew mi ça dafa am des propos yoo xam ne. nit bu ko mënee tenir ci pénc te arrêté wuñ la loolu c'est inconcevable quoi loolu yooyu dafa dafa nekk yoo xam ne kenn mënu ko comprendre man kay li may jaaxal mooy nga yëkkati kàddu gi ba pare xëy suba continuer di dox sa soxla di nekk ci lu la neex loolu moo may jaaxal mais li propos yu mel noonu nga yëkkati ko ñu convoqué la moom gëm naa ne loolu moom moo moom mooy normal et eh, de temps en temps da ngay gis d'ailleurs am na démb keneen ku ma si ku ma si gisaat mais muy muy muy yëkkati ay insultes yu doy waar di ko teg ci kaw le premier ministre et je pense que loolu oui ça doit cesser l'état doit être fort loolu su ma ko waxee du mën maa ko wax mais c'est le peuple sénégalais en tout cas la majorité euh, bu peuple sénégalais ñoom ñoo ko wax li ñu wax mooy euh, gis nga si laal faw ñu am jàngat ci scrutin euh, dimanche bi weesu mooy sénégalais yi dañoo fal un régime régime bi ñëw taxaw daal di bëri loo xam ne daf ko saytuwaat mu bokk ci justice su réew mi ñu am changement yu ñu ci def euh, lu mel ni pôle judiciaire financier ñu teg ko nit ñi tàmbalee def seen liggéey nga gis ñenn ñoo xam ne ba ñu yëkkatee ay kàddu yu saaga dañ leen a woo ñii ñu dóor leen ay ay ay ay ñii ñu euh, woo leen wax ak ñoom la ñuy wax ak ñoom ñii ñu téye leen bàyyiwaat leen nga gis ne ak léegi. am na sax ñu doon wax ne xool leen gis ngeen ñii euh, fal nañ leen ren ñu commencé jaay doole nit ñi tëj nañ fi Bougane tëj nañ fi diw euh, commissaire Kay euh, Keita tëj nañ fi diw tëj nañ fi diw gis ngeen ñu ngi jaay doole waaw ñu ngi jaay doole ñu ngi jaay doole ñu ngi jaay doole seen doole googu ñu yoroon ñu yokkaat geneen doole muy majorité bi ñu leen jox keroog ci assemblée nationale ñoom jooy doole googu ñu ñenn ñu wax ne dañuy jaay doole mm-hmm. askan wi yëkkatiwaat doole ju bëri yo yokkalaat leen loolu c'est message fort mooy ce peuple n'est pas contre la reddition des comptes ce peuple n'est pas bu taxaw ne réew mi lépp dafay tegu ci yoon ku wàcc yoon dañu la teg ci yoon et je pense que loolu askan wi moom moo leen jox feu vert mooy ñun bu fekkoon ne askan wi tey mais ay jàppe yi gii ñuy def nii ñoom ànduñu si wala façon bi ñu koy defee ànduñu si mais mm-hmm. duñ voté duñ leen voté ñu am majorité bu écrasante à l'Assemblée nationale mm-hmm. mais dañoo ñëw taxaw dañ leen a wan à travers vote bi dañoo bëgg ngeen gaaw ci mbir mi ngeen teg ko ci yoon mooy ñi doon sàcc teg leen leen ci yoon. Mhm. ñiy wax lu dul yoon nañ leen teg ci yoon. ñi nga xam ne tey ñoom ay cette loi d'amnistie ñi doon def nañ justice la askan wi di di réclamer justice nag mooy réew. Mhm. il faut qu'on se respecte. Moustapha Diakhaté. Mhm. dinaa xool nu ma initier benn plainte collectif. boo xam ne. moom dinañ dikk si kawam léegi. waaw loolu dama bëgg ñu taxaw si. ñu def suñu plainte collectif maak ñi ma ci àndal ñëpp na ñëpp ñëw ñu ñu ñu plaintandoo ko. parce que lim ñu wax daf ñoo naqari. waaw moom dinañ dikk si si kawam léegi. donc loolu sax dafa am des propos yoo xam ne mënoo nekk si penc mi ku la neex saaga di wax ay waxi lu la neex. Mhm. xam nga yooyu saa yi mënul mënul continuer saa yi mënoo toog si biir réew di wax ay et des choses yu grave dañu léegi waxuñu waxu yu oyof yooyu de yu diis la wax ah, parce que parce que sortie bi dafa mel ni daf doon commandé si génnub àdduna kii di Moustapha Ba mais c'est yow tu bi daf dafa dafa bëgg ay empoisonné ay opposant wak propos yooyu ku ko sa yëkkati saa dañ lay dem wala nga ñëw ñu àtte la dóor ci kaso bi loolu mooy yoon dañ bàyyi naxante bi vraiment euh, Vito yow it convocation wu Cheikh mën naa tegal gars yi li Cheikh waxoon mun naa tegal gars yi li allez-y li Cheikh waxoon tey jii bu 15h lay dem fële ci cybersécurité. lii la waxoon. benn loolu benn bi ci des bu gën a garaaw te ma gis ko ci yeneen i réew bugguma leen ko ji mais on va vers vers série d'assassinats dans ce pays d'empoisonnement. ça c'est la méthode ça c'est la méthode non mais je te la vérité. c'est mais je sais la wax moom xam naa li la wax ces bu ñu xamee ni ils seront pas capables dans les pays yu muy am nga xam ni c'est des populistes ñooy ñëw accéder au pouvoir mm. par la terreur la ñuy gouverner mm. te fii Sénégal organisation du monde nga xam ni ñooy euh, surveiller réew yi ils l'ont à mm-hmm. a des choses yoo xam te xam nga Sénégal du mm-hmm. nga xam da ngay jàpp nit ko ci sa ginnaaw palais dóor ko bal ci bopp jël ko sànni ko jësi gi ci sa ginnaaw ñu lekk ko mm-hmm. loolu mënoo ko fii Sénégal du Burkina Faso Sénégal du Mali fii am na loo xam ni gars bu ñu bëggee maintenir au pouvoir c'est par la force lañ koy def dañuy terroriser nit ñi jàpp leen dugal leen ci kaso bi te kaso boo ci dugal leen gën kaa bari ñaari at day moo tax dama ne la bu mu la bett bu ñu amee ay série de morts subites dans ce pays à travers la classe politique ancienne parce que ñii di gouverneur réew mi man mimoon leen jiñu ma leen mais mimoon ma leen dara te xam nañ xam naa ne amuñu état d'âme bërki dem bi ma jekki jékki dégg ñu otage ma ne ma par exemple waa ba dafa gaa dafa gaañu Mamadou Moustapha Ba dafa gaañu mais man automatiquement dafa am lu ma tikkee parce que damaa nekkoon ci yeneen i réew yoo xam ni. Mhm. di jax di di jëflanteeg ay doomu aadama yoo xam nekkoon ma leen di ñawal. ñuy benn lieutenant mës na ma ko wax bu nekk Guinée. Mhm. moo doon expliquer ci temps Sékou Touré naka lañ doon reyee nit ñi ci biir prison yi pour wàññi leen. Mhm. dañ lay jàpp dugal la ci prison bi. parfois sax njaganaay bi ngay tëdd moom la am empoisonné. ci tëdd bi nga ciy tëdd da xëy xëy rek de c'est-à-dire boo liggéey Bougane Gueye Dany a il avait parfaitement raison de s'en méfier képp kuy acteur politique nga mos a nguur gi wala nga bokk ci nga xam ni troisième voie nga nekk alternative faroog ñi il faut nga jël say précaution nga dem uti li foo ko ma demal fii ba. Israël au niveau de Mossad nga dem jënd ko téye ko y aura des tentatives d'assassinat d'empoisonnement de tueurs à gages soit des des des des des des des snipers loolu moi c'est moi qui te le ne malheureusement fa la jëm parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo jël réew mi man wóoluwuma donc loolu. lii la Cheikh wax. jërëjëf xam naa ne euh, peut-être ñi ñi <clears throat> ñi ñuy seetaan. mën a comprendre bu baax mën a comprendre bu baax. kan mooy peut-être Cheikh Thiam à travers les images. Mm-hmm. mais kan mooy Cheikh Thiam aussi à travers yan propos yi nga xamante ne ñoom la yëkkati. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax à chaque fois mooy il faut avoir un respect. Mm-hmm. envers peut-être nguur gi fi nekk. premièrement il faut que nit ñi respecter leen. mooy ñi nga xamante ne dañu jàppee seen bopp ay opposants wala dañ jàppee seen bopp ay société civile xaw ma peut-être. wala ñi nga xam dañ jàppee seen bopp peut-être ay intellectuel wala ñi sax lanceur d'alerte. il faut ñu respecter nguur gi fi nekk. parce que am na yenn kàddu yoo xamante ne. nit ki peut-être nag ñi fi ne maase nañu ak ñoom ci ay at. parce que mag bi du bare noonu. maase nañu ak ñoom peut-être ci jaar-jaar parce que ñi fii la ñu jàngee fii la ñu génnuñu dem bitim réew jaayuñu kenn lenn loo xamante ne li ñu doon jaay nit ñi la pour wan leen ne man dama am degré bu ma toll wala dafa am fu ma toll ci sama àdduna parce que bu njëkk ba il faut que ñu nga sol costume ñëw toog ne man Oxford laa jàngee fii pour ñu mën la respecter kon normalement ki nga xamante ne Sénégal la jaar def jaar-jaaram yépp fii pour nga respecter ko wala lu lu jafe lay doon mais il faut qu'il respect mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy Bassirou Diomaye Faye ah, ak ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal mhm. te xam ne c'est plus Bassirou Diomaye Faye mais c'est le président de la République du Sénégal mhm. xam ne c'est plus Ousmane Sonko mais c'est le premier ministre du Sénégal responsable du gouvernement wala chef du gouvernement bu ñu jàllee ci loolu il faut qu'il respecte ce gens qui ont voté pour ces gens absolument cinquante-quatre pour cent de Sénégalais saa waay mënuñu leen a dupe gënu leen fi muus nit ñi gënu leen fi jàng nit ñi gënu leen fi tukki nit ñi. Uh-huh. ëpp amut lenn loo xamante ne ëpp ngeen ko nit ñi. cinquante 54 pour cent des sénégalais yi nga xamante ne gëm nañu sa projet gëm nañu Ousmane Sonko li mu yëkkati gëm nañu sa référentiel bi nga xamante ne moom mooy jëlee Sénégal yóbbu ko ba cinquante mais il faut qu'on les respecte. Uh-huh. mais ay dof lañu wala ay xar lañu ñooñ dañ leen di woowee ñii. dañuy woowee 54 pour cent yooyu ay xar ñii di leen woowee ay dof ñii di leen woowee ay bëy ñii di leen woowee ay nag juste par par manque de respect. Mmh. mais yéen a gën a muus nit ñi wala yéen a gën a xam nit ñi respecter le choix des le, le choix des gens mmh. c'est le minimum qu'ils puissent faire fu mu toll nii respecter gëm toog na ci dëkkum démocratie la ñu nekk. Mmh. c'est la loi de la majorité. ak minorité boo xamante ne dañu koy protéger mais majorité bi bu ñu décider vraiment yéen ñi nga xamante ne yéenay minorité. Uh-huh. mën ngeen a wax seen xalaat mën ngeen a wax seen gis-gis mais respecter leen majorité bi nga xamante ne moom moo décider loolu mooy démocratie mais bu ñu nee anarchie totale. Uh-huh. mooy lan ku nekk toog wax lu la neex mais xoolal wax yu dem ci excès yii nii. vraiment c'est nañu nekk ci opposition bi waajal parce que dañuy dem ci ay série d'assassinats parce que gouvernement bi mënuñ. te gouvernement populiste bu ñu faloo ci loolu la ñu jëm. te moment bi mu koy wax dafa tombé ak procureur sàkku enquête ci anam bi Moustapha Ba génnee àdduna. xam nga leneen li sax mooy tooñ. comme ni ñu koy defee si Tchad. te ñi dëkk Tchad nekk suñuy nawle. comme ni ñu koy defee ci yenn dëkk di lim ay dëkk. te ñu nekk suñuy nawle. kon am nañu ay Tchadiens ñun ñu dëkk biir Sénégal. bien nañ fi. am nañu ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñun dañuy lay jël seeni référence na yeewu xeetu yenn xeetu ñaawteef yooyu ci mhm. seen dëkk yi lay am te saawaay ñooñ suñuy nawle lañu xanaa sax booy wax nga bañ a tudd ab réew ne yenn dëkk yi wala benn ci xeetu dëkk yi léegi nag comme moom il a osé mhm. wax lenn li nga xamante ne bu dee loolu dëgg la mhm. suñu cohésion sociale ak suñu sécurité dëkk mu ngi en jeu lii yoon mooy vraiment dig boo ko convoqué. Mhm. ñu convoqué ko cybersécurité cybersécurité. Mhm. ñu convoqué ko mu dem wax li mu wax fan la ko teg mu dem wax li mu wax génnee ci ay preuve parce que nee na ku ci ne mu ngi leen di diggal nañu dem uti ay antidote bu ñu ko mënee uti ba Israël nañ ko dem uti ji. ba pare mu ni il assume. waaw mais na dem assumer mhm. léegi nañ ko convoqué. Euh, convoqué bu ñu bu ñu ko convoqué bu demee. na wax li mu wax fan la ko teg. bu dee li mu wax am na fu mu ko teg xayrun bu dee amul fu mu ko teg nag ñu teg ko ay daan ba nga xamante ne keneen dootul ñeme wax li mu wax nii. Hmm, parce que ay nit nekk ay opposants ñooñ sax mais ñooñ sax da nga leen war a respecter. Hmm, hmm. ñooñu di ay opposants da leen war a respecter dañu lay waaja a rey. yow ñu ngi lay waaja a rey si wala ñu ngi lay waaj a posone loolu kat mooy kat mooy jàkkaarloog nit ne ko ñu ngi lay waaj a rey. léegi nag l'État doit se doit d'être fort. par rapport à ces vraiment déclaration yi nga xamante ne day menacer stabilité réew mi day ah. menacer stabilité suñu cohésion sociale ah. mais il faut que ces gens arrêtent mais pour tàmbali rek il faut vraiment il est maintenant temps qu'ils apprennent à ah. respecter ces gens qui nous dirigent mais aussi à respecter ces gens qui l'ont qui les ont choisis ñi nga xamante ne ñoo leen votel vraiment war nañu respecter ñooñ te xam ne bu ngeen yaakaaree ne ñii dañoo dof yéen a dof bu ngeen yaakaar ñii ay xar lañ yéen ay bëy mais euh, finalement c'est assez quoi. ah vraiment en tout cas mi ngi noonu naka tey quinze heures la fas yéene dem wuy ji enquêteurs yi nekk fële euh, ca cyber euh, sécurité lépp.